mais boo dee séddale séddale lu ñëpp bokk. Mhm. nga xam ne état la un état organisé lépp lu muy def day tënku ci li nga xam ne moom la waa réew mi wax. Mhm. président Macky Sall nag yore alalu nguur gi di ko séddale séddale de di def lu ko neex ku ko neex mu yokkal la ku ko neex mu wàññil la loolu amee ñu né nañ ko étudier mu am ben cabinet privé bu tudd MGP Afrique mo moo étudier système de rémunération bu Sénégal. daan ni am na ay corps yoo xam dañ leen a léser te ñooñu jàngalekat dañ ci bokk ak yenn catégorie comme au niveau de la santé def na ay recommandation pour ñu soppi nu ñuy fayee liggéeykatu nguur gi gën a andi yamale parce que dafa am boddi compte u am ci ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi président Macky Sall jot rapport bi ñun ñu partagé ko ak moom de la place à Dakar bi ñu paree ñu jël rapport bi jox ko Macky Sall depuis décembre deux mille quinze mi ngi ci table Macky Sall Macky Sall di tendeefal bu nekk buñ ci tuddee ne rapport bi nañ ko teg ñu xool nu ñuy dindee euh, jafe-jafe yi am ci ni ñuy fay liggéeykatu nguur gi moom Macky Sall ne jàngalekat yi xaar leen léegi nag moment bi mu leen di xaarloo lu ma juróom-ñaari at ñuy xaarloo jàngalekat yi ñuy muñ tey mu xëy ministre de l' économie et des finances Abdoulaye Daouda Diallo dem signé benn arrêté ministériel moom ak ministre du travail Samba Sy ñu dem yokkal ay liggéeykat yu nekk au ministère du travail yoo xam ne jàngalekat yi ñoo leen gën a

méthodique. Uh-huh. teg ko ci sàpp ak ni ñu wax ne la liggéeykat yi uh, amee seen i grade ak seen i hiérarchie. Uh-huh. léegi Macky Sall def ko moment boobu jàngalekat yi ñu ngi xaar pour ñu tiri injustice yi amoon te ñooñu mu jox loolu bu ma jëlee kenn ci ñoom quatre cent mille ñu jox quatre cent mille mooy uh, le personnel technique assimilé. Uh-huh. boo leen jëlee jàngalekat yi ñoo leen gën a gradé quatre cent mille. te quatre cent mille yooyu ñoo seen salaire ko yokk xam ni buñ ci quatre cent mille ñu dem à alors que jàngalekat bi leen gën a gradé moom bu day dem bay retraité du am trois cent mille. waaw loolu bu dul bot di compter ak jaay doole lan la teg fonction publique waxul ne noonu la war a tëddee ñu jël également euh, beneen ministère bu tudd ministère de l' agriculture boobu tamit ñu jël fa ñoo xam ni ñu gën a tuutale grade ci njàng mi ñu gën a tuutale mooy ñi nga xam ni ñoom ñu gën a tuutale grade ci jàngalekat yi ñoom ñu leen gën a gradé ci fonction publique bi ñu yokkal seen salaire trois cent ñu ngi yokkal leen deux cent mille ñooñu ñu gën a tuuti le ñu ngi leen yokkal cent mille ñooñu yokkal kenn ku am grade bu tuutee noonu waa léegi gayis foofu est-ce que ñun war ci réew moo xam ne mhm. te boobu tamit deuxième yokk bi muy ministère de l'agriculture mhm. le de l'agriculture euh, bu fe nekk mhm. moom euh, Moussa Baldé ak euh, le ministre toujours le ministre de l'économie et des finances Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñoo signé arrêté ministériel bi alors que augmentation yi sax su doon am

léegi nag mu ne léegi xam nga nu muy def day tege nee le loi bi wax tege nee le rapport MGP Afrique bi nga xam moom moo ko pour ñu def ko pour mu xool lan mooy jafe-jafe ci ni ñuy fay liggéeykatu nguur gi parce que xam ne su ko tegee ci yoon jàngalekat yi seeni salaire mën nañoo doubler wala ñu parce que li leen di fay dafa méngoowul ak li a fay léegi nag Macky Sall xam nga nu mu décidé chaque fois mu bëgg a yokkal benn day wax ministre des finances ne ko yow jëlal benn arrêté yow ak ministre boobu ma bëgg a léegi donc ñun ñu bëgg ñu fee wër dañoo ñàkkal fayda ci biir askan wi alors que ñun képp ku fi tekki dara ñun ñoo la formé ñu yore suñuy diplôme gën a gradé ci fonction publique bi ba noppi gën ci tuuti la ay salaire moo tax may profité ci sa tribune kayis foofu. Mhm. pour wax jàngalekat yi ne caaxaan faaxe. Mhm. nguurug Macky Sall dañ fa jot pour ñu jàmmarloo ak moom. wallaahi mu boole suñu boole àndandoo bu fekkee dafa laaj ñu tëj école sénégalaise ñu tëj ko sénégalais yi arbitré ñu wan leen ni président bi ñu yore day yàq njàng mi. président bi ñu yore dafa soxor. Hmm. président bi yore day def seddale maam président bi ñu yore tëddewul njaaxaanaay kon ñun bu boobaa dinañ won Sénégalais yi ni ñun lii ñuy xeex ci dëgg lañ ko teg lum ci bañul moom président Macky Sall ñu bañ ñu duñ ko ci bañ parce que réew mi ko ko ko moom ak ñi mu àndal. Hmm. dañ ko ko dénk un temps temps boobu sax d'ailleurs ñaari at moo ci des parce que président Macky Sall mënta nekk candidat en deux mille vingt quatre. Hmm. su fekkee bëggul taal su bëggul taal réew mi mënta nekk candidat en 2024 donc ñu loolu moo tax ma jàpp ni jàngalekat yi mbéjum mbéjum kanam boroom moo koy fajal boppam man li may demandé jàngalekat yi mooy nañ boole sunu doole du préscolaire au moins secondaire képp kuy jàngalekat nga xam ne président Macky Sall mbéj nañu président Macky Sall mi ngi ñuy jaay doole kon nag li jot mooy ñu taxaw fépp jàmmarloo ak moom. lu ci bañul buñ ko ci bañ parce que réew mi moomu ko alal ji réew mi ñoo ko moom mën jël mais di leen jox lu bari ñii mu leen di jox tuuti de séddale maam alors que loi bi waxul loolu loolu mooy position bi nga moom laa ci am te maa ngi ciy waxtaan ak syndicat yu bëri di leen wax ne jot na nag ñu boole sunu doole bu ko defee ñu bàyyi sunu féewaloo bi bàyyi sunu tëb timbante tànk bi ñu àndandoo def wenn wu say won Macky Sall ni réew mi moomu ko ñu paralyser école sénégalaise ko ne ko jaay doole bi ñuy def. yi dañ cee bokk ñun jàngalekat yi kon nag kenn du salfaañe sunu àq ak sunu yelleef ba ñu toog di la seetaan